واقبل به يا هذا يا كريم وابل من بي يناجي يا قريب يا مجيب سل على الذي به تجيب واقبل به يا هذا يا كريم وابل من بي يناجي ما bi ngeen def dafa am solo te mooy lu fi xew ngeen wasaare ko àdduna si yëpp kat discours sëñ jaar na fa mu daan jaar sant mag yi nga xam ne ñoo doon ànd ak démb sëriñ bi ñi leen wuut seen ginnaaw ak ñi leen sant mboolem boo xam ne ñu ngi waaye dafa am lu am solo nag ci discours am mooy yoon wii juridiya nangu na lu ne ba mu des pas ab tubaab ak ñun loolu nag am solo man arrangé na lool ci jataay bi ndax solo ndax day jur ak day jur ak leen baax baax baax به واقبل به نظمي هذا